leen saytu saa su nekk waaye nag ñoom ñooñee jamono ji li ñu jàpp mooy dañuy radicaliser seen ab xeex ba tax na nee nañ dootuñ nangooti lenn lu ñeel wàllum paju ñu koy defati ci seen ab yaram ci fàttali nag ñoom ñooñee dong ñu woon ci réanimation ndax Ousmane Sonko moom itam ma nga ca hôpital principal bu Dakar di wëyal grève de la faim am la nga xam ne nag moom lañu jàpp mooy dafa am injustice boo xam ne moom la ñu daal di teg seen kaw bañ fas yéenee xeex ngir retrouver lépp lu ñeel seen àq ak yelleef ca Admis en réanimation, Cheikh Bara Ndiaye et Hannibal Djim refusent désormais tous soins médicaux. Cheikh Bara Ndiaye et Hannibal Djim se radicalisent dans leur lutte pour recouvrer leur liberté. Le chroniqueur de Walf TV et son co-détenu refusent dorénavant tout soin depuis hier dimanche. Maître Moussa Sarr a donné l'information après une visite au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Selon lui, leur situation sanitaire est extrêmement préoccupante, surtout qu'ils ont décidé d'arrêter de recevoir des soins selon Maître Moussa Sarr, mais rappelons aussi qu'Ousmane Sonko se trouve présentement à l'hôpital principal de Dakar, menant une lutte, selon lui, contre l'injustice, mais aussi pour le respect de ses droits fondamentaux. Quelle suite l'État du Sénégal va-t-il donner aux revendications d'Ousmane Sonko, Hannibal Djim et de Cheikh Bara Ndiaye? Leurs partisans, sympathisants et militants ont hâte de les voir recouvrer leur liberté et ainsi retourner chez eux, revoir leur famille. AGT News.